jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñoo ngi fii dalalaat yeneen ñaari xale yoo xamante ni dox ci diggante Thiatou Fora ak ki nga xamante ni mooy Alliance Baldé ni ma koy waxee chaque jour rek le golden boy moo fi nekk ba tey le golden boy de moo fi nekk ba tey di Habib euh, nekk ci chemin euh, defe naa ne tamit ci journée bi la bokk mu dox ci diggante Thiatou Fora ak ki nga xamante ni mooy Alliance Baldé ma bàyyi leen ñoom ñaar ñu nuyoo ndax combat bi la xew ci combat bi moo ci xew combat nekk nañ ci di dox di dox ba léegi combat bi sottiwul te ñoom ñaar ñëpp def naa ne pare woon nañ Habib na nag ñëw na taxawal combat bi ma bàyyi leen ñoom ñaar ñu nuyoo ku ci njëkk a nuyoo sax yéen ñaar. aja bisimilah. aja caat fa nuyoo. auzu billahi mina seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim. ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur. Hmm. waaw di leen sant yéen ñii di leen nuyu ak assistance bi si toog promoteur bi yow eh, ak ménagère yeeg yëpp nuyu tamit sa mbokk xaalpulaar yi bandiraal xaalpulaar salmini moom kaltonoɗo wawi wonde fof bio mbimi mbimami di nuyi wa jamo gan fora samay deret tarkindayi eyyi ñëpp maa leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama adversaire di ko jaajëfal xam ne lii yombul mais xëy na borom bi moom lu mu yombal lu nekk day sotti quoi mm-hmm. noonu la demee nag alliance ba laaj auzu billahi mina salaamaaleykum gannaaw ba ma sant yàlla julli si yeneen bi di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal assistant bi yëpp suñu borom dafa leen tawféex di ñaanal le golden boy comme nuñ koy waxee le promoteur de tous les temps di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu suma manager suma xarit yàlla yàggal ko fi ak bépp koo xam ne yaa ngi fi rek ak Sénégal yàlla dafi jàmm sëñ Fallou na neex. Hmm. kon dina neex. <laughs> ni ko kuma gaw la waaye woon dina neex dina yëngu. non warul yomb parce que boo boolee ñaari xeexkat ñaari bërekat. Hmm. lam boobu warul yomb man du ñaan dara damay jëli damay fuxar ci far foo xaaruma cinq minutes xaaruma deux minutes bu arbitre tegee loxoom fu mu fekk ma fu mu taxaw ma fekk ko fa. lu ma wax dama moo ngi nii wax ko moo lu ma wax dama koy jëfe fii laa ko waxee woon ma ak Sibor mel la bu arbitre suuf lay ñaanuma ko damay jëli bu arbitre suuf lay damay fuxar ci. caat faal foqarti dara kii li mu waroon foqar yëpp rëcc na ko. jëlal micro bi. Eh, kii di foqarti dara li mu na ko ñun ay xale nekk si yoon moom mooy comme ni ngeen ko waxee rek promoteur yi yàgg nañ koo bëgg. Mhm. billaay walaay xëy na loo gis lu nekk rek bu jotee rek day yomb. Mhm. mais man sama choix newul woon kii sax yàlla moo ñu boole mu nekk mbër ma koy ñaanal jàmm bis baax man xamee wuñ ma sax yooyu. kon du ma am choix bu gën bii. maa la ëpp ay combat ëpp la ay victoire yow da ngaa topp ci ginnaaw mbër pour am tour sama tour maa nga xeexal sam bopp c'est le travail qui li ma am man maa ko xeexal sam bopp. xoolal foo fekk. ci ginnaaw kan la topp am kii daa topp si ginnaaw mbër pour am tour man sama tour maa nga kereel sam bopp. tuddee ma kenn sam bopp topp ma si ginnaaw mbër bu mag nekkuma si benn mbër bu mag équipe bu ma nekk boo nee alliance da nga naan ban booy ngay tuddaat ay xale ñoo fa ne Hmm. dama gëm sama bopp amul benn mbër bu yaakaar ma topp sa ginnaaw kon nga dem xoolal li nga am man loolu laa bëgg a am kon du topp si ginnaaw kenn kii barki maa ko ay combat ëpp ay victoire mu naan ay kii yow yow ngay mag nga topp si ginnaaw mbër. loolu yëpp jëlal yaa ma bu combat yaa ma bu bis baa li fay neex yëpp maa koy def maa fay fecc mu neex. <laughs> maa fay bëre mu neex. fu ma la jàpp fu nekk jël. maa ko daax a xale bu bi sant balee da dëkk Pikine borom duñ càpp duñu soos duñu sëpp lu ma xëccoog ñoom mu dagg billaay maa ko daax a fecc. maa ko dàq fecc maa ko dàq bëre maa ko gën a ñeme maa ko dàq ambiance damay moroomam si dara may géwél dégg galañ ci làmb ji lii la ci am. alliance Baldé ko xam-xam ne làmmiñ bu rëy rek la fi nekkee di wër di tëkk waare di wax. Ah, làmmiñ bu rëy boo xam ne ba nga ne alliance daw na mus ngaa seetaan combat alliance daye man dong maa am 5 kaaw si làmb ji dóor mu daanu moom kan la dóor mu daanu. man sama maa dóor Sa Thiès mu daanu. yooyu kii bi moom bu arbi soufflé bu soo taxawee ma duma la. man loolu noonu la demee nag moo tax ma xam ne tax ma xam ne combat bi day neex. mais nag mais nag kii dafa xiif de. dama xam ne combat bi day neex parce taxaw. man loolu laa xam mais nag ndax bi mu fi jógee li mu fi jëlee neexu ko. Ousseyn dama koy daan. kii. ah loolu jeex na <laughs> li ma la mën a wax mooy du xeex ak man day yooru man du ma yooru man maa la ko sama lamb sama set combat yi ma bëree man maa la yooru day yooru yow amoo force de frappe diisoo da ngaa ayof toll force de boo xam ne koo dóor mu daanu même sama jaam nga naa ma dóor mu daanu mu xam benn combat boo dóor mu daanu du ma dóor dóoru ma mbër mu daanu mais sama morom bi ma ko seqal nag may abal géew. non man moom maa a pare maa la gën a yàqu fu. bokkuma yow taper nga ci ginnaaw mbër nga topp pour am tur. caay loolu barki Serigne Bamba bu arbitre soufflé du ma la ñaan damay jël. ginnaaw mbër mbër boobu noonu suñu papa la ñun. bu ñu bëggee bëre yàlla ñun la am nga ma la rek li ma am may sam boobu. déglu ma ma wax man bi may bëree mbopat. sama indépendance maa ngi xeexal sa bopp ma xeexal. man fi ma doon ngemb di ko bëree yow ñeme faa bëree yow. voilà ba bis bu bis bu dina leer caatu fora bu arbitre bi bis baa dina leer di nga xam mën a yow ciy mag wër na maam Serap Fall yow bi ngay bëre boobu ñun ñu ngi école di jàngi barke Serigne Bamba boo ko waxee waxoolu am billaahi wallaahi taalaay Caatu Fora bi Siteu di bëre Papa Diaye ci tuus bi nga bokk man mbapat bi ci tuus bi nga bokk nga naan ma ay Siteu bi muy bëre Papa Diaye da ngaa réer ba maa ngi jàng métier boobu ñun tuusuñu sax waaw yow dooma bàyyi yow moom lu ñu la xamee ku la xamee ci làmb ci kanamu tuus la la xamee fecc waaw nangu naa amul benn mbër bu xeexal fii wala nga bëre ak moom ba tey nangu naa mais yow bu bis baa li fay xew yëpp maa ko def yow xam nañ la lii rek nga mën ñaata defet nga am yow ñaata defet nga am defet limal say defet yow. man six defet laa am six defet loolu su ma ko naree am ci làmb damay baax. mais ñaari ah, victoire la victoire am. waaw defet ak benn sans verdict. six victoire laa am ah, rek. combat yow réglé la fekk si làmb bàyyi la fa. man da ma fekk si làmb. bés bi yow loo nar ci bés. déggoo ma la ah, pikin la sama gox lay xewee. grand combat laa la wax waxuma ay spécial de. bu ñu yéexee kenn du dugg si stade bi moom ay mbokkam duñ dugg pikin laa dëkk te am na Isaaxa Diop ak monsieur le maire am am am yow xam yow doo bu ko lamb ja man may la yem mooy joxal ma jox la mais bu arbitre tëjee ma la fit. barke Serigne Bamba lu leer laa lay wax. ñëpp dañuy jóg topp leen naka nga na waaj bis ndax defe sa diggante ak arbitre ba léegi kenn gisaatu la. naka daa am ci liñ jugee. te ñun duñ ay mbërantu ay mbër lañ suñu gox. ndax dañoo fooyee bëre ay ay nit topp suñu ginnaaw di sonn suñu def suñu xaalis bu dul jeex ñun bu ñu amee làmb nante ñooy dar. Hmm. génnee ay full morning te koy stable bi. ne la demal entraînement nga ñëw nga defal ñu léegi lii ñun ñu defal la lii kon nag ñun juum juumaat waruñu. ardo nag waaw sama yoon la bokkoon rek mënul ñàkk. Hmm. mais dama ciy sant yàlla nekkaat ci leneen te bis bu ma ñëwaatee dinañ xam ne xale du juum ñaari yoon quoi. soobee yàlla juum juumaat moom tayeef la. nan ngay ci combat waaw xanaa am contentement rek. comme ni ma ko waxee sànq rek ci sant yàlla bu baax comme niñ ko waxee ñi ko bëggoon bari nañu. ndax ñaari ndaanaan lañu. mun nañu wax ne eh, mbëru dëkk lañu mbëru réew lañu sax. ndax ñii ay espoir lañu. ñii xale yi sax dañ leen bëgg. te boo xoolee seen communication rek nga xam ne ku ci nekk am na lu mu bëgg. te ku ci nekk am na fu mu bëgg a jëm. kon donc bu ñu ko yàlla mayee. Eh, dañ ciy sant yàlla bu baax mais di la ci gërëm bu baax a baax Ouzin lépp yow la rek yow Ami aussi vraiment eh, di wax ne daal waaw mais kenn du ménagères yi aussi parce que euh, mun naa wax ne eh, ñoom mataar ñi amuma seen fay ndax depuis bi ma duggee ci làmb ba léegi euh, ay nit ñu baax laa xam ci ñoom te lu may dugg lu ne bu ñu amee occasion dama lay dama ciy waxtaan ak ñoom kon donc loolu moo tax man bu ma soxlee seeni poulain ñoom du ñu ko méttil bu dañ lay laaj sax ndax Habib la buñ la nee waaw rek. dañuy accordé dañuy accordé donc vraiment di leen nuyu waa Wassare wax dëgg si yàlla aw ma seen fay. aussi waa Nduufa FM ah, surtout ami ah maa ngi leen di béggee bu baax a baax. di gërëm ñaari mbër yi ah di leen kontaane di leen wax ne en tout cas la may wax rek que le meilleur gagne. Mm-hmm. waaw ndax damay tëdd njaaxaanaay que le meilleur waaw maa ngi gërëmaat ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñaari xale yi ndax bi ma leen woowee ñoom tamit yombalal nañ ma ko trop muy alliance muy caatu fora ci ndigalu ki nga xam ne moom mooy Ousin moo leen woowoon ngeen yombal ñu ko trop alliance xam naa ne yàkkamti na combat bi ndax foo ko fekk rek mu ngi toog naan Ami Collé def ko grand combat ñu wàccee stade ba mu wàcc ndax ñaari mbër lañ waaye Ousin su ma sañoon nga jox Babacar wala matu kàddu gi ñu ñëw dugal ci seen seen combat Babacar ñëwoon Babacar ñëwoon parce que euh, ñoom tamit samay gaa lañ te ñu taxaw ci. léegi da jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu mbëri fi jaar du nuyu ménager yi bu baax du nuyu abit bu baax a baax ak internet yi xam ñooy bàyyi wasaare xel ak Ndofane TV ak jël bi ak ñëpp ñu leen nuyu di jaajëfal bu baax a baax ak ngaram di di nuyu encore une fois Habib ndax yaakaar naa ne lu def yombul. combat yooyu fi décorosé yëpp combat yi promoteur yi ko bëggoon bari na mais yàlla suñu borom dogal na si moom la turam la taxawee. du nuyu Ouzin bu baax tamit parce que am na waaye wàll bu rëy bu mu ci joué ndax yaakaar naa ne mbëri bari na ñoo xamante ni moo leen contacté te combat yi ñu ko bëggoon bari na ñun daal ñu ngi ñaan suñu borom dimbali ñu kàttanal ñu ñëpp bañ àgg seeg bisimilah rahmaani génn seeg alhamdulilah rabbi alamin ñu biir bi réussir lépp luñ ci séntu ñu am ko ci incha du di remercier encore une fois baax a baax a baax a baax Ouzin jërëjëf. gis ngeen mbokk yi euh, noonu lañ koy defee di leen wax ne nag Habib gannaaw euh, nekkoon na sponsor di ñëw ci promoteur yi di leen jàppale. bu demee nag ba jël xaalisam dugal ko ci biir làmb pour jàppale yéen mbër yi mbër yi da ciy baax ñoom tamit ñu delloo ko njukkal ndax defe naa ne làmb fi mu toll képp koo xamante ni jël na xaalisam di ci def rek. kooku da nga ko mën a gën a jàppale muy CNG bi muy ménageur yi nga tudd ak mbër ñu gën ko oyofal affaire yi ndax liggéey bi bëggul mu yem fii yeneen du ñu yem ci journée bi dañuy def yii ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon di leen wax ne nag ah, yéen yéen a mën a jaay bés bi yéen mën a yokk bés bi foo xamante ni yéen ko mën a yóbbu foo xamante ni yeggu fa wala boo fu kawee njortam moom di leen wax ne nag bu amoon mujj nga tàggatoo moom mu tàggatoo Habib tëj ñu ñaan ba beneen suñu kàddu gu mujj mooy waaw di ko sant rek mooy comme li nga wax rek waaw nekk promoteur nekk xale dugg ci làmb ji daaw marqué sa empreinte yombul. Mhm. waaw moom daaw tëggoon nañu waaw mu am si réussir ñu nit ñu am si réussir donte nattu sax moo ñu fa dal. Mhm. mais sant nañ yàlla bu baax ndax stade bi lépp li fa amoon. Mhm. waa di ko ñaanal ci lum sumbuni nii yàlla na ko borom bi kàttanal bu baax. bis bi doon bis bi raw ci bisi ndax gëm naa ne ñun bu ñëwee loolu lañ koy def ñu nag waaw di woo tamit waa jaamu gën. Ah, di woo waa Fora. woo di woo diaspora bi. tarkindaa yi ñoom ñoo géré ñooñu maanaam tarkindaa du cadre dara famille la famille ñu bokk suñu yaay sax si tarkindaa yi lañ bokk. Mhm. waaw kon ñun famille la quoi di woo ñëpp di ci jiital nag suñu mbër mi mooy Siteu ak jabaram ak tarkindaa di ñaanal Fodé dem si yàlla ci yàlla na ko yàlla yërëm. bi ma njëkkee bëre arène kii ma ñëwee ma daal ñaan damaa bëgg combat arène dafa ma ne demal ñibbi yow fooj bëre demal toog waay bi ma njëkkee bëre ñu daan ma ma bëre waat daan moo ñëw si ma ne ma bëre la ak Alliance mën na ko yow même sama jàmm mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen bu dul dëgg yàlla bu ma jiitooti ma fekk si ko léegi mën na ko fóore la moo tax nga mu bëgg ma bëre kooku mu ne ma parce que mbëru nante la te affaire bi géem la kook ngay bëreel soo ko daanee da lay yóbbu fu sori sama deuxième combat arène xëy na nag muy wër loo affaire bi di wër di wër ba yàlla def ko nii kon nag moom làmb ji da cee am part de ndax ku ko bëggoon la eh, di woowaat ñëpp di woo waa Amérique sama benn xarit bu tudd Matar moom ak jabaram Fatim maa leen di woo si combat bi bolog yi laa bëgg ngeen gérer ko Fallou et grand Fallou boo xam ne mook abi ay xarit lañ moom tamit sasaan naa ko ay bolog combat bi damaa bëgg képp ku may jàppale bu ma jox fukki dërëm loo may jàppalee rek jënal ma ko ay billets parce que damaa may tout tànk sama booy ngewel gu ndaw waa Fora sama booyu ndaw yi dañuy ñëw ba stade duñ mën a dugg te damaa bëgg ñooñu ñëpp ñu dugg li làmb xale la. Hmm. kon nag xale yi laaj ci yéene ñoom ñëpp ñu ñëwul ma. waaw di sant yàlla bu baax di woowaat ñëpp suñu maire yi a ñi jàppal di woo Tafa Cuun di woo Samba Dieye ah, di woo sama gaay ay Laurent ay Baba sama booy ñoom Abouya ay Cheikh Isma Alsan sama mbokk booy ndaw di woo nag waa Fora ndax ku nekk tamit fi nga dëkk rek foofu nga mën a wootee. Mm-hmm. man Fora fa dëkk man ni mbër di ndamoo xaalisu làmb lañ ma ngéntee man noonu laay ndamoo ne xaalisu nag ak xar ma ngéntee ndax dama ko doon di leen woo ñoom ñëpp paawu ngare onon fof jaggon hen to neɗɗo jaggi fof mbiɗa yiiɗi inchallah jañenam ndi wottami somo mboko foofu tamit sama yaay fa la bokk di woo ñëpp nag waaw noonu la demee alliance Baldé waaw yaram dafa daw parce que képp kuy dund làmb rek foore jóge fi hmm. naqar la sa maanaam comme defaluñ dara sax mais dafa wax wax boo xam ne kuy nit rek war na la mën a marqué maa ngi koy ñaanal yàlla na suuf weesu si kawam yàlla na mm. dee nekk noflaayam di wax ne làmb la ñun ay xale lañ dañuy bëree dañuy day métti mais bu ñu paree dañuy boox ndey dañu boox bàyyi parce que day jeex te yàlla na yeex su ma fi jógee day ñëw su fi jógee damay dem kon yàlla nañu suñu borom defal tawféex ba promoteur bi tamit gis ci boppam. Mm-hmm. di wax ne Gana Gueye suma frère suma xarit maa ngi koy ñaan mu jàpp ci làmb ji bu baax a baax suma papa Souleymane Ndéné Ndiaye sëñ xaadim boroom yàlla rek ay buur ak jabaram soxna Aida maa ngi leen di wax ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax a baax di nuy suma grand jëf jël borom États-Unis maam gor maa ngi koy siyaare di ko wax di ko woo ci combat bi. di wax man rek la pro la la sponsor di woo woo promoteur ne tëggal diw dëgg bu mag. ni ko diw laa bëgg ngeen tëgg ko mu dugal sama loxo ci làmb ji kon loolu bu fekkee am nga ko nga nekk xale danga nga mën a da nga war a rey sa bopp pour li nga xam ne moom moo nekk ci làmb nga jëli ko. sa làmb bi nag. incha allah su ma fi jógee léegi dama koy wax ne combat bi taxaw na mu contacter la parce que man dama bëgg làmb ji taaru parce que Pikine la ñuy fekk suñu gox man maa koy dalal banlieue la dëkk banlieue laa dëkk mais maa koy dalal te dama ko war a dalal dalal boo xam ne dafa daan ko jël bu rey may ko loxo mu jug ma pare bu xëyee dem seeti ko waxtaan ak moom xam ne làmb la bu jeexee jeex na kon wasaare kese amul leneen mais Habib kese amul feneen amul feneen fii rek lay xewee ci làmb ji. bari seen ñu bàyyi Habib mu mën nga tëj tëjal sax tëjal. non may ma tuuti rek benn une minute rek li mu wax li mooy Pikine googu la may dalal pikin tamit ñun dañ faa bokk. am nañ ay nit yi ñuy bëggee yu bëri yu dëkk ci pikin ku ci mel ne Omar Senghor or ñu ngi koy woo ci combat bi moom ak mafia bi mafia ginnaaw raay bi waaw foofu suñuy nit ñu ngi foofu di woo sama benn xarit Ibou Ndar mi ngi Amérique moom it papam dafa feebar mooy per Doudou Samb yàlla defal ko jàmm ba mu jub ànd ak ay di woo antisco di woo ñoom ñëpp ñu ñëw teg ñu loxo parce que ñun ay xale lañ làmb lañ bëgg ñun boo jëndalee yére bëgguñu boo ñu mayee xaalis bëgguñu mais boo ñu waxee nan la ñuy def pour doon mbër ak nan la ñuy def pour doon champion dañ koy jël. kon ñun dara sonalul ndax lu ñu war am yëpp mu ngi suñu kanam di ñaanal suñuy yaay sama yaay mu fekkee sama njëriñ waa di sama nijaay bu nekk Belgique ak sama mag bu jigéen bàcc di la wax na gaan defal différence ak Idi sama nijaay bi nekk Gabon bi. Hamidou sama beneen nijaay bu nekk Gabon bi waaw di woo ñoom ñëpp Aliou Pam ñoom ñëpp c'est la famille. waaw man tamit dama fàtte woon suma patron muy muut parce que dafa yëkkati ay terrain yu bëri muy huit terrain mu may ma ko ci koo xam ne dafa la dara liggéey rek ngeen séq maa ngi koy ñaanal muudu yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla may ko tabax billaay wallaay maa ngee ak yëpp huit terrain la ma may parce que ñun ñaar ñooy liggéey maa ngi koy barke Serigne Saliou Mbacké mu ngi nekk Mbambilor ci télé laa nekk di wax ñun ñaar ñooy liggéey mu yor agence agence mobile agence mobilière la yor ñuy liggéey ñu am benn business bu ñu séq yàlla def mu am jàmm mu am ci sept virgule cinq pour cent mu nekk huit terrain li may wax si télé laay wax maa koy ñaanal yàlla defal ko toofee parce que bu dul woon moom du mu dugg si business boobu ba ci am cinq sept virgule cinq kon moom la yàlla na ko suñ borom defal tawféex di ñaanal Seydou suñ kot su yàlla defal ko jàmm ak bépp mboolem julli voilà xanaa di leen gërëm gërëmaat rek di leen santaat bu baax a baax a baax eh, ak assistance bi yëpp caméraman yeeg ah ñun ñoo feeñ mais ñoom ñoo yore liggéey bi donc ñu leen di remercier bu baax a baax ah donc euh, vraiment fi may tëjee mooy euh, euh, bébé Diène mm-hmm. maa ngi woo monsieur le président de Macky Sall maa ngi lay woo sama xol laa koy moo tax sax wax ji xaw demee nii que ne bébé sama booy la woon sax man mii mm-hmm. maa ngi ko xamee rëbës réussis fa ñuy jaayee yàpp boo fekk tout tànk bu ndaw la mu ne ma grand dama bëgg a dugg ci làmb mm-hmm. mais awma ma extrait ma laaj ko mu ne ma sama extrait yi man Guinée laa juddoo. Mhm. mais man maa ngi fii aw ma extrait. ma ne ko yàlla baax na dina la ci jàppale mu nekk sama booy. Mhm. bi muy dugg ci làmba xam nga des fois boo xesee commencé dugg ci yenn yi rek bon am na ñoo xam ne say nit des fois da ngay am dootu amati accès ci moom. dëgg donc bi mu duggee ba commencé dégg daal ci laa commencé ñàkk am euh, accès ci moom mais sama nit la sama booy la. Eh, wax dëgg si yàlla maa ngi ñaan Macky Sall monsieur le président kii di booy Diène bébé Diène ñu ngi lay ñaan nga jàppale ko parce que yàgg na ci kaso bi te ndaw la. Mm-hmm. mu amoon yoon boo xamante ni yoon bu rafet la. te mu nekk nit ku baax xëy na ndogal rek moo ko dal. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal képp bépp promoteur boo xamante ne yaa ngi ci làmb ji. muy père Gaston Mbengue ñoom Pa Abdou képp ku ci man dara demal ba ci président monsieur le président Macky Sall nga wax ko bébé Diène ñu jàppale ko mu génn mu wuyu ji ñi nga xamante ne ñooy ay naataangoom ci làmb ndax bëgg na teral ay waajuram bëgg na teral ay mbokkam bëgg na ànd ak ay waa écuréem ñu leen di masawu bu baax a baax a baax a baax loolu daal maa koy ñaan yàlla ak képp koo xam ne yaa ngi ci kaso bi aussi yàlla def nga génn ci jàmm. Mhm. ñi feebar nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen ñu tane ba ñu wuy jiwaat seeni famille. Mhm. waaw ñi nga xamante ne jiitu nañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla xare leen aljana yàlla yàlla def suuf seen sedd seen kaw Sénégal daal yàlla fi jàmm yàgg. amiin merci beaucoup mon frère Gilles mhm. euh, Ousseyn. gis ngeen mbokk yi Habib la woon ak euh, mbër yi nga xamante ni ñoom la jot a taxawal di di remercier ñëpp di remercier ménageurs yi di remercier euh, Ami Collé Matou Babacar ah, ak mbër yi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñoom ñoo ñëw tey signé si ak sama caméraman yëpp di leen wax ne nag yeneen mbër yi ñoo ngi ci combat yi ñoo ngi ci affaire yi di leen wax na nañ ñu xaar ndax Habib ñëw na ak beneen style bu bees Habib ñëw na ak beneen fougue de jeunesse boo xamante ni defe naa ne combat bu bés baa ku ñëw di nga gis làmb ju neex di nga gis ambiance te di nga gis ba dina jox di daje ba beneen yoon jaa ngeen jëf.